ñu ngi dem Korité am na borom kër yoo xam ne ñu ngi toog jaaxle am na ñoo xam ne franchement dara dara dara nekkul seen poche te fi ñu toll ni fañ jëm métti na donc loolu moo war a ñu jënd ci toll si ay nag ay nag euh, lim bu takku lim boo xam ne takku na lool su ko defee koñ bu ne quartier bu ne ñu di bàyyi fa benn nag addeel ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nit ñi séddoo ko def ko yóbbu ko seen kër yi su ma sañoon euh, kenn du sonn su ma sañoon ñëpp ay jariñu waaye nag comme te yàlla moo mën lépp te am lépp te borom kàttan ak mën-mën te du jeexal ba penc bi yàlla yàlla mooy séddale ñi am ñi ñàkk ñi mooy waxuma nag Ousmane Noël mi nga xam ne ab jaam yàlla sax matuma sax yàlla jaam moo dañuy jéem rek góorgóor def lu ñu mën foofu nag Sénégal foofu la toll Sénégal tolluwul ci polémique Sénégal tolluwul ci xuloo ak ñiiroo ak ŋaayoo fi ñu toll ni politique dañ ko tegee de côté euh, du répétition mais à chaque fois damay faral di ko wax dañu gërëm aussi le président Macky Sall ci liggéey bu rafet bi muy liggéey si Sénégal nañu wax dëgg rek boobu ba léegi nañu waxoon dëgg Macky Sall am na yërmande ci askanam mi ngi koy def ci anam bu gën a rafet waaye nag su fekkee da ngay opposé wu opposé wu opposé wu boo xam ne da ngay mujj doon ennemi loolu damay laaj Sénégal dañ ko bàyyi je pense que Macky Sall amul ay opposant ay ennemi la am te Sénégal waxoon naa ne benn parti moo am fi mu toll muy Sénégal benn opposant lañu am muy Covid 19. et donc nañ fexe ba politique bi nañ ko laleen bàyyi de côté ñu jàppalantee la tax opposition bi su fekkee da nga bëgg a euh, wu. li gën a rafet mooy yow Sénégal nga bëgg laaj yow yaa ngi bëgg laaj Sénégal ne Sénégal nañ nga jox lu ñu moom te fi ñu doon ba léegi mu mënoo def dara si Sénégal nga toog fi nga toog gàddu see see di ŋàññ di ŋàññ président Macky Sall dama ne Ousmane Noël lii baax la ñu def waaye nag lu bon loolu nag loolu bëgguñu ko moo tax à chaque fois que jëfee ñiy toog ci télé yi di toog ci réseaux sociaux yi di ŋàññ président Macky Sall loolu duñ ko nangu nag yaa ngoog dinañ ko yóbbu Medina Baye dinañ ko yóbbu ci quartier yi dinañ ko yóbbu fépp soble yaa ngi nii boisson yaa ngi nii lépp dinañ ko boole addeel ko Seydina Mohamed jox ko askanu Kaolack nangaan te ni ñu koy defee fii après noonu la ñu demee Dakar aussi defee ko fa ci jullit yàlla yëpp lu ci def rek yàllaa ko moom xëcc wuñ dara du mairie du député du ministre yàllaay fal askan Kaolack mënuñ fal Sénégal mënut a fal nguur yàllaa koy joxe yàllaay jox xool ku ko neex mu jox ko njiit sakkul boppam yàllaay sakk njiit et donc loolu il ñu xam ko ñu génne yenn xol yi si suñu euh, bopp ab jullit warul siis warul soxor warul iñaan nañ bëggante teel a tax soppante yàlla tax ku ci nekk sa cër ñu delloo ko ko moo gën lu waay def ñu iñaane la ko waaw lu waay def ñu sànni la xeer waaw lu waay def ñu def lu bon loolu yàlla suñu borom fu jàmm am yàlla nga fa waaye nag fu xiiroo am nag yàlla nekku fa Kaolack yëpp MJK lañ lañ leen bëgg bokk bés ni ki tey nag MJK DFS dañ see yokk S muy MJK DFSS muy MJK mouvement de euh, jeunesse Euh, euh, mouvement des jeunes de Kaolack derrière Diène Farba Sarr social le le dernier S c'est social e social c'est nous nous se social feebar boo am président Macky Sall tëjul jumaa ngir bëgg tëj jumaa président Macky Sall tejul yoon bi pour am envie tëj yoon bi dafa am feebar bu am ci réew mi te feebar bi buñ ci jugul buñ ko xeexul dina law ci Sénégal te kum dal macha allah euh, yàlla tere tereti ko loolu baaxul ci réew mi baaxul ci économie réew mi l'économie est menacée le peuple est menacé amul lan moo lan la tout est bloqué. suñu mbokk béykat yi président Macky Sall suñu mbokk béykat yi président Macky Sall suñu mbokk béykat yi wax naa ko ba mu ñetti yoon béykat yi sonn nañ bay dem di dikk bay dem di dikk lañ sonnoon waxuma nag ba dem dikk nag toogee. et donc may ñaan président Macky Sall nu dem defee jiw yi na ko suivre boppam na ko xoolal boppam engrais bi ñu jox ko ñu ko yeyoo jiw yi ñu jox ko ñu ko yeyoo bu ñu jox engrais rek koo xam ne yaa ma neex la. wala jege naa la wala ma nekk ci gouvernement bi wala ma nekk ñu jox suñu engrais nga dem toog jënd ay kër jënd ay nangam lor béykat yi ma kenn waxuma kenn dama bëgg rek mu rafet ñu jox ko béykat yi ko yeyoo